ñuy teewlu si Sénégal 7 point com dalati leen ak jàmm ginnaaw nag ñu fa yéene dikkaat ak yéen leneen li gën a fës ndiki tey ji nag si ba bi ñaar fukki fan ak juróom benn si weeru avril si atum 2023 ginnaaw nag benn bataaxal bi nga xamante ni moom jiitalu Pastef fi daal na koy amal si page Facebook am bi buñ ci dikkaatee nag Ousmane Sonko sax mu ngay rek daal di nuyoo waaye nag ginnaaw ba mu nuyoo ba noppi mu ngay daal di xamal ne résultat yam dañu sàkku jëmale ko nag sa euh, substance bi nga xamante ne moom lañ ko xëppoon si bésum le 16 mars 2023 bu ñu weesu moom leader bu passé fi sax ginnaaw bés boobu nga xamante ni doon wuy sa tribunal bu Dakar mu nekkoon ñaareelu convocation bi nga xamante ñeel wàllum dossier Mame Mbaye ak Ousmane Sonko mu nekkoon ab benn dossier diffamatoire foofee sa tribunal bu Dakar si ba muy génn këram di wuy sa tribunal bu Dakar fukki waxtu si suba gi maanaam 10 heures ba mu jotee nag Ousmane Sonko génn këram di dem fële sa tribunal waaye ginnaaw ba mu jaaree nag sa Mermoz mun nag a jël fi nga xam te rek moom mooy euh, fële sa avenue Cheikh Anta Diop de Dakar ni ni mel nag juróon coow lu rëy rëy ndax ñi nga xam te rek ñoom ñoo di élément force de défense et de sécurité ñoom bàyyiwuñ ko nag benn yoon ngir mu mën jaar euh, fële sa avenue Cheikh Anta Diop de dakaar la ko waral nag moom mooy ñoom lañ ko waxoon rek mooy il faut que mu jaar fi nga xam te rek moom mooy sa corniche bi su ko defee euh, jafe-jafe bañ am si yoon bi ndiki noonu nag jàppante am ndax ñàkk déggoo bi nga xamante ne amoon na sa ndaw ñu toppoon Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di force de l'ordre yi ñoom nag daanaka sax nañu mujjee woon mooy daal di chargé grenade lacrymogène si jamono jooju sax mbokk yi ñuy teewlu si sénégal7.com xam ngeen ne ab benn substance boo xamante ni sax ñu ngi ko doon wax rawatina nag leader Pastef bi doon wax nañ ko koo xëpp ñu daal di gis mbubu Ousmane Sonko bi dal di taq rip ab benn produit boo xamante ni dañu jàpp nag moom mooy ab euh, élément de sécurité yi ñoom ñoo ko daal di xëppoon euh, si jamono jooju sax rek procureur de la république daal na wootoon ab benn conférence de presse ngir mën a weddi yooyu la tuuma ginnaaw ab benn ndaw boo xamante ni bokkoon nag euh, si Ousmane Sonko ñu daal di koy tubbee yarga si moom yarga si boobu sax daanaka procureur de la république daal nay wax ne xibaar li nga xam te substance bi nga xamante moo takkoon si yére Ousmane Sonko bi eh, kenn def ko dul yargas yi ndaxte ab benn vinaigre la rek boo xamante ni moo ko xëpp ni ni mel nag Ousmane Sonko daal di wéy di tuuma yooyu noonu ndaxte jàpp na ne substance boobu noonu substance mortelle la maanaam tentative d' assassinat lañ ko bëggoon def maanaam jël bakkanam waaye nag Ousmane Sonko ndikki jamono jooju ñu daal di koy enterré fa nga xamante rek moom mooy sa suma assistance moom ak ki nga xamante ni moom mooy son avocat maître Ciré door si fàttali ne ba tey jamono jooju maître Ciré Clédor dañ ko rawale woon yóbbu ko fële sa duwaanu Paris ngir mën ko rek daal di toppatoo ndax wér gu yaramam dafa daal di suka sutante woon Ousmane Sonko def benn publication si jamono jooju daal di wax na nag euh, biir bi dafay metti waaye tamit jamono jooju muy wax ak yéen dafa amoon problème nokki ni ni mel sax moom Ousmane Sonko daal di sàkku rek lañ ko xëpp ñu daal di si ay leeral maanaam ñu yóbbu ko sa Paris la France ngir ñu mën see def ay analyse ba jamono ji ñu may wax ak yéen Ousmane Sonko daal nay publier si page Facebook am bi ngir rek wax ne ginnaaw xaar bu yàgg bi nga xamante ne xaaroon nañ ko ngir rek ñu daal di mën a indi ay leeral euh, sa euh, sa produit bi nga xamante ne moom lañ ko xëppoon Ousmane Sonko sax daal na wax ne effectivement résultat yi rek daal nay dëggal euh, tentative d' assassinat bi nga xamante rek dañ ko bëggoon def moom si boppam maanaam bëgg a jël bakkanam te ña ko defoon dara war a ñenn waroon ko ñu ñulul ñi nga xamante ni moom ñoo di élément des forces de défense et de sécurité waaye nag Ousmane Sonko nee na dinañ si gën a dikkaat si lu yàggul dara si ab benn de presse boo xamante ni ah, dinañ ci gën a ñëwaat ci jëmale ko nag si ah, tentative d' assassinat bi nga xamante ni ñu ngi ko bëggoon ko def ah, ndax jamono ji moom ma ngay nekk fële sa duwaanu Ziguinchor ginnaaw ab benn cérémonie de présentation des grands travaux foofee sa mairie de Ziguinchor si après midi bi waan maanaam bu 16h jotee Ousmane Sonko nag nee na dinañ gën a ñëwaat si ni mu gën a yaatoo si biir xibaar bi nga xamante ni mu ngi ko leen di baaxee ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ak leneen lu gën a fës jaa ngeen